waaw salaamaaleykum waa groupe bi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ah. waaw kii dañ fi publier photo am sànq wax ni dañ ko rey Touba yooyu noonu quoi ma leen di wax ni lool do amul quoi kii sama jarbaat la moo ngi nii dara jotu ko maanaam tunguli du teew ñi nataal xaaral ma laaj ko ma ko kii yow foto bi bi nga gis noon fan kañ lan la ko photo ah? tey suba ah ki la ko photo xàmmee nga ko waaw ah, kon sama gars yi noon la demee dañ ko ko photo tey dugal ko tey waaw noonu la demee quoi ma ne woon nag na ko dugal ci groupe bi ba ñëpp yaakaar ñu yaakaaroon ni dara doxoo dal ñu xam ne dara jotu ko fa mu ngi ci jàmm ki caaray sur mer la dëkk mu ngi Dakar fii mu ngi nii dara jotu ko yëre yi la soloon tey waaju foto ko dugal ko wasalaam